di nuyu mbokki àddina bépp man la xaadimu nooru Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ibnu xaadimu rasul maa ngi nuyu ñëpp fii ci Touba di xaadimu nooru Mbacke di sëtu sëñ basiru Sarr bu Cheikh Ibrahima saar Njaañ ñu ngi fii ci Touba Lansar ñu ànd ceeg responsable yi nga xam ne ñoo nekkal fii sëñ Modou bu Dieng sëñ Ahmadou bu sëñ Modou Mahfous sëñ Sohaïbou Sarr sëriñ Abdou Hakim Sarr sëriñ Modou Diop sëriñ Cheikh Bara Sarr soxna Mousli Sarr ak soxna Aysatu Sarr. ñu war a waxtaanee itam élection législative yi ñu jëm la 17 sëñ Modou Bousso Dieng tabb ma tabb ñii yëpp ci liste bi ñu war a waxtaan ak yéen waaye di leen xamal ne di na leen yéen waa Touba ñoo ngi leen di ñaan ngeen wooteel liste sëriñ bu sa jang bi bu ngeen ñu wootelee bu ñu demee assemblée national mboolem lu lu naqari Touba wala lu Touba di jooytu danañ fexe mu fajoo foofu ci Assemblée nationale. di leen xamal na leen itam waa bitim réew ñu baree bari woon nañ ma di di wax ne oto yi ñu daan andi dafa seer ci ñoom dee dédouanement bi dafa metti te mooy de sept ans ak mooy de huit ans dafa metti ñu leen xamale bu ñu demee Assemblée nationale itam danañ ci liggéey ba nga xam ne danañ dindi taxes yi ñu tegoon ci oto bi ba oto boo jëlee bitim réew mën ko andi. suñu taalibe yi doon ay étudiants te nekk ci université yi woo nañ ñu ñoom ñëpp ñu ne juróom-ñaari weer yëpp kenn fayu leen ay salaire loolu itam ñu ànd ak sëñ Modou Bousso danañ ci liggéey loo xam ne moom ñëpp danañ leen delloo seen i bourse te luñ man ci yokkal leen ko danañ ko def. suñu taalibe yi nekk ci oto yi oto transporteur yi di ay sëfoor ñoom it ñi ngi jooytu lu ne ñi ngi naan dañ leen di andil permis à point bëgg di nangu seen i permis wax ju ñaaw ju ne ñu leen koy wax bu ñu demee ensemble national danañ ci liggéey liggéey loo xam ne kenn du leen noggut dañ leen jox seeni cër respecté leen kenn du nangu seeni point li nga xam ne dañuy wax naan buñ gañee danañ ko yokk ñenn ñi ñooy wax lool ñu ne dañ yokk courant bi mu war a seer mu war gën a seeraat loolu danañ ci liggéey ba kenn du ko yokk ndax Sénégal yi dañoo sonn ni ñuy fayee courant dafa metti dund gi moom jërul sax taalibe yi dañu ko wax xam nañ ko seeraayu dund gi dafa metti te dafa war a mën a yomb ndax euh, bu yàggut rek kilo ceeb ñeent fukk ak juróom la jar fi na kilo ceeb bi gën a yomb téeméer ak ñaar fukk lay jar danañ ci liggéey loo xam ne ceeb ak diwlin ak suukar lépp dana yomb danañ ci liggéey ak bi waxtaan ceek ñoom ba nga xam ne lépp day yomb ci askan wi ndax dund ki dafa metti waaw yoonu murit moom da danañ ci liggéey ay ay luwaa yoo xam ne danañ ko aar aaraale aara aaraale lépp ba kenn dootu xas kenn laqatu di xas kenn. yooyu yëpp bëgg nañ cee liggéey. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.